politique boo ca bëggee nekk goru ëllëg dangay fexe ba bu la yàlla falee bul wut pexe yoo fa tooge parce bu la yàlla falee nga bëgg wut pexe yoo fa tooge di nga dem ba yàlla ma la faloon jéppi la te bu la jéppee wàcc la moo tax yàlla dafa bëggoon a seexale politique ak ak ak maandute maandu lànk ni ko politicien mënula la maandu du ma ànd ak moom ñu bëgg nag ñu ànd rek yàlla fexe ba rek lee ko ci yonent bi te mooy mu nekk un politicien ba noppi mu rob ko ngor bu ngor dikkee rek politicien ak maandu mën a ànd ndax la lay manduloo mooy sa ngor nga dul jaay am na loo xam ni pal jaralu ko nit ndax ngorom ñu ni kon nag boo bëggee nekk gorug ëllëg bu la yàlla pale xamal ni yàlla la fa bàyyi lépp loo xam ne mooy sagu jaam yi rayal sa bopp ci nit ña def ko waaye bul soxla ko ko tudd bul soxla ko ko meeting bul soxla ko ko track waaye boo demee commencé ca meeting ak traag ak leneen rek booba yaa ngay wuti pexe yu la fa téye te bu yàggee yàlla jëppi la génne la fa ñu ni wala nga nekk boog un juge juge boo xam ni mbubb rek ca la sa àtteyam mbubb te mooy boo xasee ba sol sa robb rek lu la neex nga wax ko ci biir toog ak ay gor ñuy gor comme yow mbubb tax mbubb tax nga àttan a sos kooku sa conscience dee na kon nag boo bëggee nekk goru ëllëg da lay wóor ni mbubb miñ la solal tey bala yàlla war a solal ëllëg moo la ko war a gënal إنا جعلناك خليفة في الأرض باي فاحكم بين الناس بالحق لوي ترل نيت ني ولا غاكاي حاتي نكو دغلال bul topp seen bànneexu bakkan waaye nee na nit a nga sol rob kooku daa bëgg nekk tey jaamu tey di wax di fuur di jël loxo yay def nii pour ñu gëm ko te fekk na loxo ya muy def nii bu paree dugal ko ci loxo waay poche waay poche waay pour mu génne waxam ja doon fuur ndax la mu wax yépp ay soppi kooku tey jaamu tey la bëgg nekk bëggul nekk ngor wala wala boog professeur nga ñu jox la ay nit pour nga dugal ci seen bopp dara jàppal ni rek yàlla leen indi ci yow rek la la nga yor yàllaa la ko jox nga di leen ko baaxe kon instruire leen mais bu leen séduire waaw ñëw jàngal leen uniquement pour ñu xam rek waaye bul ci wut looy séduire parce que ki bëgg a séduire mooy tax di rey boppam lu ne mu dugg ca parce que prix Nobel lay wut te am na kuy am prix Nobel fii ba noppi te balaa dee malaaka yépp jëppi ko ndax la mu def ci dundam ba am prix Nobel buñ ko waxee nit ñi àdduna tukki mu ni wala bokk journaliste nga journaliste dafa am luy liggéeyam te mooy firi jamono ñëpp mënuñu ko kon bu jamono yëngoo nga ñëw jël sax dégg-dégg ak sa ñor-ñor jël xew-xewi jamono toggal ko nit ñi ba jox leen ko ci anam boo xam ni dina leen jariñ tey mën a waar ña ñiy ñëw ëllëg nee na bu boobaa goru ëllëg nga bëgg ne waaye ki nga xam ni sa xalima yépp dañ koy jënd baat boo bind xaalis a koy fay ah nee na koo de ku dem ba sa métier yépp ci foofu la tegu bis boo gisatul loo waxit it di nga sos loo wax waaw bu boobaa dootul bind teg ko ci sincérité mais ci corruption nga koy teg mooy waral ñu bari ñuy bind lu leen neex ay nit di leen utiliser di leen jox ay alal naan bindal ma ci diw magum boppam am famille am ay nawle jël xalima bind ci mbir jox ko gor yépp ñu jàng ko xam ni dara du ca dëgg googu kerse fu ko nit attane te fekk ne pour ñu fay la rek la waaw fayu ëllëg nag ah wala boog directeur de service nga ñu xam ba xam ndax da nga bëgg bokk goru ëllëg wala jaamu tey directeur boo xam ni bu nit ñay wàcc du wàcc balaa nit ñaa xëy si mu xëy si du toog ci bureau rek pour climatiser ko mooy ma ngay dem di seet employé fu ñu toll mu ngay ñëw di seet liggéey ba lu ca dox ak lu ca doxul mu ngay laaj kenn ku ne lan mooy sa problème personnel bu bokkul ak problème mu entreprise bi di seet fu ñu lay jaar pour que nga tal sa bopp pour mën a tal entreprise bi problème bu posé wu mu seet fu ñuy jaar ba trouver la solution ah boo ñëwee ni ko moom patron mun la as yëf yi benn la ñoo ko bokk yàlla ma fi indi rek mën naa fi jóge dem feneen kon nag duma fi ñaw ci diggante bi kooku goro ëllëg la waaw waaw kooku ba abadal abidin ay employé am duñ ko yàpp ndax xam ni kii kat naw la la def ña nekkal te du tere nag cër buñ ko war a jox ñu jox ko ko waaye nag nekk directeur de service ku ñëw nga buute ko e man awma seen temps menacé ñëpp ku wax nga ne ko dama lay sanctionné ku def petite erreur sax nga def mise à pied xañ ko ay salaire pour quelque kii te xamuloo ni père de waroon na tey bu amul lu mu dundee tey jii nga tane ko nga génn jox ko mu dunde nga dem booleet ci ko sanction d'accord sanction mënul ñàkk waaye bala ngay sanctionné fekk nag sori nga ak nit ki mais am na ñoo xam ne booy xonqal bët ñuy sanctionné loox ñu la jaay la yeneen kooku boo demee ba mu yàgg say employé dootuñu la nawloo dootuñu la nawloo moo tax am na ci lu am solo maa ngi koy gis nga du wax pour pour pour pour pour jaayaate waaw Aziz njaay mii dama ci dem keroog xam nga man yi may seete nit ñi bokkul ak yi nit ñi seete nit ñi man nanga nekk un président de la république bu may ñëw nit laa jàpp ni moom lay giseel waaw boo ma wanul jëfi nit rek ma bala mu jeex waaw waaw waaye dama dem di ko seeti lu jafe la nekk ci barab te yëguloo li nga doon day fekk nga séddoo leneen lu ko dàq waaw waaw leneen lu ko dàq bu ko defee rek jàpp ni nit ñëpp ay nawle lañ waaw koo yilif sax yilif gi dafa am fu mu yem gisuloo Serigne Cheikh li mu wax nee na ilimaan nee na responsabilité ilimaan di ci biir julli galayam waaye bis bu sëlmale rek nekkatu ko nekkatu ko responsabilité ba yëpp ci biir julli ga la mais bu julli gay jeex rek dootu ko nekk nga bëgg nag yow fu julli gay jeexee nga war quartier bi yëpp naan leen may ni dëkk bi dox leen ma nangam defal leen ma nangam te imposé ah yooyu yëpp dafay am ah bu ko defee boo bëggee nekk gor ëllëg nag tey chef de service yooyu ngay def bay xel nit ñi kenn ku ne nga di ko seet korom bu nuyu ko nuyu bu yiw am na ñoo xam ne duñu nuyu sax seen personnel duñ leen nuyu romb rek fenêtre yi claqué porte yi ah yenn yi secrétaire yi ah duñu recevoir nit ñi bu baax boo leen nuyoo sax lan la woon lan la woon gor gor gu jóge këram bàyyi léppam ñëw di seet ci kilifa naan ko lan la woon def laa joxoon rendez di mel ni kuy wax ak sa sa doom waaw waaw ñu mel noonu mais nit dafay yiw bu nit ñëwee di seen même bu amul rendez-vous ah euh, ko doon seet mu nit la kilifa gi ngeen ko def la jox rendez-vous mu ne la déedéet nga ne ko ah sur rendez-vous di la daan recevoir rek waaye xaaral ma wax ko ko ba xam mu ne mën na laa baax na bu dee day jox rendez-vous mu jox la ko toogal tuuti ma ñëw te di téléphone wala dem seet kilifa am na ko lay seet wax ko ko mu nee na ñëw nga ne ko nee na nga ñëw bu dee nee na mu dem ba beneen nga wax ko ko yooyu yëpp bu ko defee. ngor baax na parce que bu ko nit ñi dul seetlu yàlla nga koy seetlu yooyu al baqiyatu salihat loolu loolooy barkeel métier bi waaw mooy barkeel métier bi kenn ku ne nga fonk ko waaw fooy ñibbi sax en tant que directeur de service am na say personnel ñoo xam ne amuñu lu leen yóbbu e kaa ma yóbbaale la waaye yow diw ba ba place sàngam yooyu yëpp baax na waaw baax na waaw waaw waaw waaw employé bi ci boppam moom itam nag waaw waaw muy employé bi wala muy fonctionnaire bi wala muy ouvrier bi moom itam am na loo xam ni kuñ ko may ba noppi nag nga war a am noo mel nag waaye ñëw ci société bëgg a tas société ba wala entreprise ba jaxase ña ca entreprise ba commencé def ay clan ca entreprise ba ah ñaari baat yu nit ñi wax nga ne ay di leen ñu grève te am na ñoo xam ne bu ñu leen dàqee du yow yaay fexe ba ñu jëlaat leen ñuy chômer ay weer ah foo nekk indi fa problème bu dul jeex nit day yem ci fa mu war a yem liggéey la indi rafetal ko sellal ko amanteeg na nga nekkal jàmm def ko yéene waaw boo gisee sa kilifa ormal ko boo gisee ñi nga bokkal service ormal leen ba ñu xëccoog ñoom dara booy bëgg a jël dara sax keneen ñëw nga ne ko ah bu fekkee ni yàkkamti wu loolu rek ma yeggale li jox la ko ah bu fekkee ni yàkkamti na rek nga jël boo paree indil ma mais am na ñoo xam ne dañuy dem ba ay outils sax dañ koy xaj seen morom di ko nëbb ak di def lu ne ah yooyu yëpp di comploter di seet nan la ñuy dàq seen dàquloo seen directeur di bind ay lettres anonymes ah yooyu yëpp ci koo xam ne da ngay daan sa doole rek pour ñu ñu fay la itam nga dem ci kër jàmbur bëgg ko tas mais kii taxul kenn di liggéey boo bëggee nekk ngorug ëllëg da ngay xam ne alal ji nga ciy am sa ngoro ko gën ndax as alal baaxul waaye as ngor baax as ngor baax na waaw as alal baaxul féetewul nit fenn waaye as gor loo ca am baax na waaw noonu la ah, kenn ku ci nekk ba ci commerçant bi ah ba ci bi da ngay daan sa doole d'accord waaye da ngay xam ne rek am na ñoo xam ne seen dund am na ca boo xam ne ci yow la aju seeni i ci yow lañ koy jëlee. ci yow la ñuy ravitaillé woo mais nga dem ci bu mujj ki nga di leen pincé waaw bu pénurie amee sax ngay jéem a def marché noir bu daan jar ñaar fukk nga di nit ñi juróom fukk ci loo xam ni nit ki mënu ko ñàkk di def yu kenn xamul mujj gi riba bi mel ni maara day tàlli ah maara day tàlli wala booy jaay nit ñi mélangé ko doole lu baax ak lu bon jaxase بوي بوزي دوغل تيانين لك بقل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون تري كالوني نعم نيود فق نفكي فاكتورو كران بو خامن وور نكو ني كونسومي وكو مو خلا غاني كو اورديناتور بي اورديناتور بي كو خو ها facture ndox bi noonu mu wax la nga ne ko ordinateur be ah système mu sàcc bu ne ñu wut ko mi fan la nit ñi jëm du sotti bu ñu delloo ci yàlla rek yëpp dox yëpp barkeel xamuloo ah yëpp barkeel bu ko defee nag nañuy delloo ci suñu xel ci yàlla xam ne am na loo xam ni passage la passage la te dafa am fu ñu jëm foo xam ni lu mu yàgg yàgg yàgg wiiri wiiri wiiri jaari daari yàlla dafa am ko ko fekk mu toog bis mu ne ko yàlla sa sa patt gii nag mu ne xam ni bunt bi benn la rek te fu ñu jaar jaar fii fekk ma mën naa ko muñ lu mu yàgg yàgg bunt bi benn la fu ñu jaar jaar fekk ma fii danaa rek la yëpp bu ko defee kon nag ñuy bàyyente xel parce que jikko it bu yàqu àdduna tukki waaw ndax yàlla dañ ko laaj lan mooy def crise économique mu ni crise morale كريز مورال am كريز crise économique ay ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف يلا نينا داغي غيس دك بو بروسبيرون ملون نو ني نيب دان ري سين بوب دي دم سي دك با نخ لا نيو سوخلا ييب فلا داك نينا غا خي خي رك بوين لا ني دك با بوبا ملني غني موكو ndax lépp lu fa nit doon wuti ñëpp daw nañu ndax alkande fa mujj ku ko di demal Beyrouth Beyrouth moom lañ daan wax jannatul ard le paradis de la terre léegi nag mujj na nekk l'enfer de la terre waaw mujj na ko nekk parce que sëñ Cheikh a ko wax ne ne kilifa yoo xam ne kenn jubu ca te kenn ku ne doo déglu sa morom bu yàggee réew ma tas moo fa am nee na Sénégal gii bu ñu yéexee mu ñëw fii ku kenn dul déglu sa morom kenn du jàppalante ak sa morom ku ne xeex sa morom bu yàggee réew ma taf waaw dafa ko ku ne ku ne nag na bàyyi bon moo tax nag li ma ta bàyyi xel mooy xadis bi yonen ci ba wax xadis bu garaaw ndax dañ ko laaj mu ni al iman bidun wa sabuuna shuba أدناها إماطة الأذى عن الطريق وأعلاها لا إله إلا الله yonent bi nee na nee na parcours bi nit war a def ci imaan nee na soixante-dix étapes la soixante-dix étapes yoo xam ni trente-trois yi kàddoo ko moom waaw non vingt-trois yi kàddoo ko moom vingt-trois yi ci des jëfa ko moom 23 yi ci des yéene ko moom muy ñaata muy 69 mu def benn yàlla nee na bu yëpp jekkee ba sa 69 ba ma wàcc si moo tax ñu laaj ko nag mu ne kon yaa ngay commencé ci boo rombee xeer ci mbedd mi xam ne mën naa fakasal nit nga dandal ko ngir bañ mu gaañ nit foofa ngay commencé booy wut imaan waaye ki nga xam ne nag moom la muy def yépp mooy lu gaañ nit yi kii moom ndax imaan a ngi ci moom ah yàlla nee nag bu juróom benn fukk yàgg juróom ñeent ya mate rek yàlla nee na ma wàcc si moo tax alaha laa ilaha illa allah yàlla wàcc si waaye mu waxaat bu gën a garaaw mu ne ar riba bid'un wa sab'una shu'ba moom itam dégg nga de yonent yi bay wax bid'un wa sab'una shu'ba moom itam adnaaha an yatiya rajulu ummahu alaaniyatan yonent bi nee na riba mooy li nga dox usure nee na moom itam parcours la boo xam ni nit dana ko def ba mu jeex moom itam 70 étapes la waaye étape ba ci gën a tuuti ci étape bu riba mooy nit ku fekk ndey bi ko jur mu ñëw di ko sàkku moo ci gën a tuuti xoolal loolu fekk ndey bi la jur nga di ko sàkku nee na moo gën a tuuti ci état bu riba te juróom-ñaar fukk la kon wóor na la ni état bu riba bu nekk dina lekk benn étape ci imaan